donc euh, avocat déchargé na léegi nag vraiment wóor bi dem na que nañ bàyyi ba fi ak suba rek bu soobee yàlla allah loolu daal dina wuy si dina bu wuy si dina wuy si loolu incha allah fii ak suba heure yi moom dina am ci lu leer normalement de dans les normes man su ma doon ak à sa place man man Oumar Sow ma nekk à sa place vraiment man demay wuy si laa la wax wuy si laa affaire bi justice la da ngay dem ñu ut ay avocats yu ñu euh, ci affaire daal teg ko ci table bi gars yi daal ci la la layoo ba dee moom set na benn problème ba dee setul nag mooy xam ne loolu la defal ci moom loolu kese la daal vraiment loolu laa wul woon si waat di leen ko baax di sant di defal ko jàmm jërëjëf taxawaay corona bi vraiment taxaw na waa Fula du topp biir koor corona bi amee ba léegi mu mu ngi seen ginnaaw quoi di leen jàppale lu mu ci mën loolu nag c'est à saluer quoi di ñaanal président pour le Sénégal daal ko jàmm jërëjëf ak yéen waa presse bi ci rajo réew mi yàlla defal leen jërëjëf euh, Omar Sow mbokk li ñuy waxtaanee mooy Ousmane Sonko suba lañ ko convoqué lan ngeen koy xelal mu dem wujji wala mu toog këram euh, beneen ponk bi ñuy waxtaanee mooy lu soxal wàllum vaccin yi nga xam ne dañoo jàpp ne kilifa yi ñoo ko ngar daajoo bàyyi ñi nga xam ne ñoo taxoon vaccin yi vaccin yu njëkk yi ñëw asalaamaaleykum. Euh, asalaamaaleykum. waaleykum salaam wa rahmatullah sama goro na nga def maa ngi fii booy Saloum Saloum na koy tey. sant bu baax na waa Touba. waa ñoo ngi si jàmm macha allah. waaw nii ñaa ñëpp Maram Fall euh, Alioune Thiam. Fall Thiam moom Maram ñu ma ni goro. Mm-hmm. allo. waaw maa lay dégg waaw maa lay dégg bu baax a baax. Euh, mbirum mbirum Ousmane Sonko. Mm. biñ de man maa Ousmane Sonko dana wuyu ji mais incha allah rabi si jàmm lay mujjee incha allah man maa la wax noonu. Mm-hmm. waaw dana wuyu ji mais si jàmm si saam maanaam mbirum Ousmane Sonko pompeter bu tàngal ci biir gémmiñ ci biir gouvernement bi day boo xool wax nga ko sànq weekend bi passé nii ñun ñëpp dañu war plateau yi di wax wax joo xamante te ñoom dañu waxoon kenn du ci wax benn bu si topp si wàllu ñàkk yi mm-hmm. man en personne man man man Mbaye Sam Sall ak man ñi nga xamante man sama personne sama en personne man goro mm-hmm. man de ñàkkuwuma tey ñàkkuwuma ëllëg man man ak sama njaboot laa wax de en tant que sénégalais nag man waxuma man na du ma wax ne bu kenn ñàkku waaw man ak man man APR Gora man booy Saalum Saalum man. Mm-hmm. man de wax dëgg am na ñàkkuma man. ah man dara wala amul ah, nga si sañ sa nga sañ mais Macky Sall nee na bu ñu ñàkkul day may vaccin yi de. waaw ko non comme moom la concerné quoi comme moom man ah man de ñàkkuma tey ñàkkuma ëllëg man man man man a ak sama njaboot man waaw. jërëjëf jërëjëf euh, Boy saalum Saloum mbokki li ñu waxtaane mooy vaccin yi ñenn ñi dañoo gis ne VIP yi maanaam kilifa yi dañ ko ngar dajoo maanaam ministre yeeg euh, maire yeeg euh, yeneen xeetu nit ñi nga xam ne daal ay nit ñu siiw lañ te vaccin yi nag ba mu fi doog di ñëw dañoo waxoon ne ñi nga xam ne ay mag lañ ba pare ak ñi nga xam ne dañoo amee ay jàngoro ak médecins yi ñooñu la ñuy njëkk ci la ñuy njëkk a ñàkk ci dose yi nga xamante ni mooy njëkk ñëw léegi nag euh, gis nañ euh, gox yu baree baree bari maire ya lañ njëkk ñàkku ak ñi nga xamante ni daal ay kilifa lañ moo tax presse bi tey xëy jàpp ne euh, vaccin yi ña nga xam ne ñoo taxoon a jóg vaccin yi ñooñu nag ñàkku ñu leen ci li nga xamante ni maanaam moom mooy mbir mi dafa am ñenn ñoo xamante ni daal ñoom ñoo ko jël ñoom lañ ci ñàkk xeet yooyu te dañoo waxoon ne deux cent mille doses yi bu dikkee ndax étudiant yi nga xam ne ñoo nekk année clinique étudiants yi nekk année clinique ñoom ñoo ngi nee nañu ba léegi ni ñoom ñàkkoo ñàkkooguñu te ñoom dañoo sàkkoo ñàkku léegi nag euh, askan wi tamit il faut tamit ñu xam lan lañ bëgg nag dañuy mën a dem ñàkku ji euh, wala ñu indi leen ñàkk yi ñu ñàkku mënuñu ko kilifa yi ñu bëgg a ñàkku ñàkku ndax jàpp naa ne benn maire bu nekkee ci benn gox loolu tamit ci communication la bokk bu dee ab commune nga nekk maire ba xanaa maire ba bu ñàkkoo ñasa def xanaa danañ si am kóolute wala ministre bi ñàkku wala kilifa gi ñàkku comme par exemple tey porte-parole xalif général des mourides bu ñu ko gisee tey mu ñàkku gis keneen ñàkk gis keneen ñàkk peut-être ñoom loolu lañ si jublu ah peut-être ñoom loolu lañ si jublu kilifa yi njëkk a ñàkk ndax vaccin yi nag dafa bari coow avant muy ñëw ci réew mi euh, ma ngi noonu lan moo ci seen xalaat ci loolu nga xamante ni euh, moom lañ moo jëm ci wàllum ñàkk yi beneen bi mooy Ousmane Sonko suba lañ ko convoqué lan ngeen koy xelal asalaamaaleykum. waaleykum waaw Maram. maa ngi sant yàlla bu baax a baax a baax naka yi tey. Dakar yëpp. waa Touba ñoo si jàmm waa Ndakaaru ñoo ngi si jàmm. waa di nuyu mu génn léegi Saalum Saalum di ko baax di nuyu ñoom Alioune Alioune Alioune ak mhm. euh, bo bo Kële euh, duñ ko waaw bool bool ñoom ñëpp daal. Mhm. Euh, soldaar. soldaar waaw. ak Pape Thiam pompier. Pape Thiam ah, pompier waaw beneen Pape Thiam itam ngeen ñu ko dégg trop. Pape Pape wootee parcelle. Pape ah non Pikine wala Pikine ñetti mbaar. pourtant ah, Pape Pape Thiam da doon Pape Thiam bu doon wootee defe naa parfaite. ah waaw wax nga dëgg waaw. bon man Ousmane Sonko jàpp naa ne moom euh, ñun moom bu ñu mën lu may def di ko ñaanal ak yàlla dimbale ko ci pexey noonu yooyu ko wër noonu yi ko bëgg a sànq ñun loolu lañ koy ñaanal parce que jàpp naa ne am na daal ñu ko xalaatal am na ay avocat yu pertinent yoo xam ni macha allah euh, jàpp naa ne ñoom luñ ko xelal moom lay jëfee euh, bon ñeneen ñi nga xam ne nag. Euh, dañuy jóg di na ci télé ak rajo yeeg Ousmane Sonko na def ñi yeeg force reste à ak nangam nangam yooyu yëpp Ousmane Sonko déglu leen euh, moom ñu muy déglu mooy ay conseillers di ko ñaanal yàlla yàlla defal ko jàmm jàpp naa ne mbir yi moom leer na depuis le ba léegi liñ ko wax yëpp leer na naññ naññ naññ xanaa kay bëggul gis dëgg rek mooy xool xam ne lii di wax yeneen wax mais wax ji leer na nañ dégg nañu yëpp PV yeeg yëpp gëstu nañ ko déglu déglu nañ ko. waxu viol moom jàpp naa ne kenn mëntu ko wax di di ko wax di ko waxal Ousmane Sonko xanaa bëgg a yàq de rek loolu dong la léegi tey nag bu dee nii euh, ci mbirum vaccin yi sénégalais yi kay xam nañ li ñu bëgg ah benn ci man man de du ma ñàkk man moom moo xam nu mu ko mën def na ko maye na ko saraxe ma man moom ñàkkuma bu yeboo sax manqué dégg naa ñoom ñi wax ñoom seen biir ñoom ñooy wax ne voilà am na ku ma dégg tey mu woote ne moom bindu na waaye jotagu ci parce que dañ koy jox ñi âgé wala ñi ñi nga xam ne ñoo nekk ci santé bi nangam ak nangam te gis naa ci ay mbër yu ñu koy jox at yi kenn xamul ay xale yu ndaw ñu ngi leen koy jox ñoom ñoo xam man de wallaay bu ñu ko taaloon sax euh, concerne ma li ma ci concerne daal mooy ñett moom dama ci dégg ne dama ci dégg ne moom bon ñoom liñ ko jaayee Sénégal sax te ñoom li ñu wax xam nga ñu bëree ba dañ dañ ko may. Mhm. ñoom ne dañ ko jënd deux milliards deux cent. Ablaye Diouf saar may la waxoon. waaw yeneen réew yi nekk yeneen réew yi nekk Afrique tamit may la. li ñu wax ne moom lañ ko jëndee dafa dafa cher parce que dañ ne benn benn vaccin bu ne day taxaw ay dix-sept mille et te dégg naa ñàkk yi ba ci gën a cher moom warul àgg sax ay ay ay ay huit mille francs kon loolu ñoom jàpp naa dañ jël occasion pour mën ci sàcc xaalisu askan bi loolu rek la ci jublu mais ay ay population bi itteelu leen. man jàpp naa ne ñett yi baaxoon dëgg dëgg dëgg dëgg ñi ci war a jot moom duñ jot comme ni muy demee nii ñaan kii manqué naa kii manquéwul ba fekkee ne moom day faj dëgg te man li ma jaaxal mooy da nga koy ñàkk ba pare ñu ne da ngay continuer ba pare ngay jël masque di moytu kon léegi kay ñàkk bi léegi ban ban ban fii la ajiri ah, a ah, a ah, ah moom kay <laughs> doy na waar man de benn docteur nee na boo ko ñàkkoo terewul yow di ngay jël masque di raxasu gel di def lépp ah mais loolu moo jaaxal gars yi ah man dama jàpp ne comme day faje kay day aare kay boo ko ñekkoo rek c'est fini yow war a jël yow léegi libre. ah mel ni mbaamu tabaski libre <laughs> doo yor masque doo def dara man loolu jaaxal kon kay ñàkk bi bëri na léegi jërëjëf. <laughs> Maram Faye ma ngi noonu waay eh, eh, am na benn journal bu bind tey enquête enquête nee na Médina fi soldaar dëkk Médina foofu dafa am ay responsable politique yoo xam ne ñoom dañoo mobiliser seeni association de soutien yóbbu leen ngir ñu dem. vacciné wu te la jamono la joo xamante ni ñi nga xamante ni ñooy hémodialysé yi ñoom dañoo am ay jafe-jafe ngir jot ci vaccin yi maanaam vaccin yi nag ñi nga xam ne dañoo amee yenn feebar yu garaaw yi mag ñi nga xam ne dañoo am yenn feebar yu garaaw yi ñoo ñooñu war nañoo fexe ba ñàkk yi euh, ñoom ñu mën a jot si ñàkk yi ni mu gën a gaaw yi mooy ay mais da ngay inscrire rek xeet yooyu mais am na ñoo xamante ni wax dëgg yàlla mënuñoo inscrire xamuñu fan la ñuy inscrire woo euh, te loolu dafay guddal jël rek. Euh, mbir maa ngi noonu en tout cas daal journaux yu baree bari dañoo xëy gis ne ñi nga xam ne ñooy VIP yi maanaam noonu lañ ko tuddee ñoom ñoo ko tuddee nag VIP yi euh, VIP yi ak militant politique yi ak famille politique bi ñoom ñoo ngar daajoo vaccin yi léegi nag loolu moo ci am état bi nag ñoom li ñuy def xaw ma ñoom dañ ko teg ci seen communication wala déet wala dañoo bëgg a ñemeloo askan wi ndax bëri na ñoo xam ne nii ñemewuñu vaccin yi amaana ñooñu bu ñu gisee yenn kilifa yi ñàkku ñoom seen xel mën naa dal ci wàllu woowu amaana loolu moom mooy plan bi nga xamante ni mooy comité bi ñu dénk wàllum ñàkku yi ñoom loolu lañ teg lan moo ci seen xalaat beneen ponk bi ñuy waxtaanee lan ngeen xelal Ousmane Sonko suba lañ ko convoqué asalaamaaleykum. allo maaleykum salaam sëñ Abdou Khar. waaw naka yi tey. ji li ñoo lay ziar yàlla na yàlla nangu ziar. waaw di wootee fii Dakar rek di leb tur bi. di wax man ku ma déggal da nga dem ñakku ji. Mhm. te aussi politiciens yi nga xam seen maanaam seen seen militants yi di leen yóbbu. Mhm. mais man ànd naa ji. Mhm. ku ma mën a protéger pour ma bañ a feebar. def ko. te deuxième troisièmement mais Abdou Khare fii la ñu waxoon ne maanaam autorisé nañ njëkk a ñàkku balaa ñun ñu siy tegu. bu le problème. du ñoo ko waxoon. daa ngi koy def. léegi li bëgg nag léegi. Ah. Abdou Khadre Abdou ah. Khadre maanaam réew mi métti <laughs> Abdou Khadre yow mii di wax yow journaliste mën nga ñu orienté parfois ñun il faut nga ñu orienté na yow tamit nañ ñu nag leen malgré suñu xalaat la ñu wax nga dañu ee eh, yéen a fi doon woote naan na na njëkk a ah, wax déggoo mën ne sànq léegi nit ñi nag lan la xamutoo lan lañu bëgg nag <laughs> dégg naa la di mais sama classe bi ñu déggee noonu mbiru Ousmane Sonko moom Abdou Khadre lu muy jox leen rek la Abdou Khadre waaw réew mi doomu aadama bu poli maanaam bu tribunal soxla da nga wuyu ji ak lu mën a xew waxuma nag moom bu demee luñ koy dafa dëggal lu dëgg loolu waxuma ko mais kuñ soxla Abdou Khadre tey Ousmane Sonko buñ ko wooyee demul mais suba Abdou Khadre man ma sant Sonko. Mhm. def lu ma neex ku ma convoqué ma lànk. Mhm. am nga mhm. na dem wuy man su doon man waxuma moom mu dem wuy ji ndax am na dëgg wala amul dëgg mais nee naa la. tey police wala gendarmerie kum soxla te wuy ji woo. ba ñëpp xam ko benn yoonee bépp sénégalais bu ko nekk ñu wax nga bañ na wuyu ji mhm. moo xam am na wala amul si ñaari doomu aadama lañu fi tëj kaso gis nga Sonko waree doon président mhm. amul doomu aadama bu si mën dara mhm. amul nit ku ko mën a tere doom doon président daa république loolu nit mënu ko maanaam mbir mi jëru sa sonn Mandela mu réew mi loolu amul sens waxtaan bi ne moom laay tëjee dama ne man danaa dem sama doom dana dem sama yaay dana dem Macky du ko yóbbu du ko maye ji jërëjëf ñu koy jaajëfal bu baax a baax Rewmi FM ngeen di euh, déglu lan ngeen di xelal Ousmane Sonko suba lañ ko convoqué te nee na woon bu ñu ko convoqué di wuy ji scénario bu mel ni nag am na càdd Tchad dafa am benn opposant boo xam ne ku sonal Idriss Déby am na ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatullah waaw ah, sëñ Abdou sant yàlla bu baax naka xidma yi waaw ma ne waaw loolu nga doon wax léegi waaw dafa am ku dëkk rue treize angle seize. ah. foofu seize affaire fa nekk. waaw. <laughs> ci suba woon nañ ma ñetti yoon di ma confirmer loolu. ah. waaye man tamit du ma ko mën a confirmer parce que tegu ma ci sama bët. waaw. ay suñu ay militants yu dëkkee koñ boobu ñoom ñoom mu woo ne ma am na ay leaders yi nekk di dajale. Mhm. ay waa affaire pour ñu dem ñàkku ji. waaye ba ma ñëwee ci koñ bi wax dëgg yàlla gisuma ko ñëw naa ba ci saison affaire bi foofu. Mm-hmm. wax dëgg yàlla gisuma ko. Mm-hmm. waaye ñi dëkk ci koñ bi ñoo ma woo wax ma. Mm-hmm. donc munu ma ko confirmer munu ma ko weddi. jëli loolu leer na. waa leer na mais même bu dul Medina tamit yeneen gox yi tamit kilifa yi rek lañ gis ñuy ñakku non no gis nga problème ñàkku bi na nit ñi dem ñàkku ji. gis nga jëli dafa am li ñuy politique yi am na lu kenn dul politique euh, kii Seydi wax na professeur la wax na nañ dem ñàkku ji na nit ñi dem ñàkku ji bàyyi caaxaan yaa ngi dëgg. nañ nit ñi dem ñaqu ji man ñaqi suma ci amee damay dem ñaq ji parce que un gars agrégé wax na su waxee nañ dem parce que dafa am ni ñuy politique am naa kenn du ko politiquer et deuxièmement fi may jeexale mooy kaawu Sonko. Mhm. Sonko man li ma koy conseillé comme que def na décharge bi dina dem wuyu ji parce que bu fekkoon narul woon wuyu ji jël décharge bi te maa ngi koy conseillé na dem wuyu ji waaye itam bu mu nangu ñu tëj ko tëju kaña waaw bu kenn tëj tëju tëju kaña nañu àtte affaire yoon teg ko ci yoon bu fekkee libre na. te ko tuumaal nañ ko àtte ñu bàyyi ko mu ñibbi dem këram jàmm dellu si yëpp nekkaat ci jàmm man daal loolu laa am li may wax euh, maa ngi nuyu ñëpp di leen sant sëñ Abdou dinaa am benn vidéo bi ma la indil nga xool nga xool dégg nga di nga jël loxo taf ci gémmiñ d'accord <laughs> jërëjëf euh, jërëjëf incha allah soldat mbokk yi li ñuy waxtaane mooy vaccin yi euh, tey journaux yu bari dañoo gis ne kilifa yi dañoo kilifa yu baree bari daal dañoo ngar daajoo li nga xamante ni moom mooy moom mooy vaccin yi am na ku nekk ci ligne bi asalaamaaleykum. asalaamaaleykum. waaw borom Bagdad. waaw madame Fall. maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax macha allah. ñu ngi déglu rajo bi yëpp ak soldat mhm. moomu génn. Mhm, macha allah waaw ñoom ñoom ñoom ñaata dose vaccin lañ am sax ñoom. ah deux cent mille lañ amoon may may nañ Guinée may Gambie. <laughs> donc en tout et pour tout c' dans les cinq cent mille doses. te ku ne di nga def ñaari ñaari vaccin. Mhm. waaw loolu moom grand yoo sax bi ñu jógoon pour vacciner wu du bat donc lu fi jar wax ji. ah ku ne ñaari vaccin ngay doy di seen dara doyul ku ne ah. ñaari vaccin la nga ni ku ne ñaari ñàkk lañ lay ñakk ah si loolu la jox de da ngay def vaccin ñu toogaat xaw ma deux semaines nga ñëwaat fii ma gis bitim réew ñi ñi def de loolu laa gis ñuy def ah. xaw ma nag ay vitamine la ñuy jël ñoom am déet <laughs> waaw bu ko sa dara doyul sa coow bari mais vraiment Sénégal daal wax ju bëri jëf ju tuut yow yaa xëyti mu laa li ngeen yor ci doos doyul nag leen ba am lu doy sax au moins ngeen wax et puis nañ ko vacciné woo nañ ko wéetoo noppal na leen parce que li li weste woon mooy euh, feebar bi moom xam naa ne tey mën nañoo souffler bu bougie jëm ni nga den gatu parce que nag ci la ñu taasantaloo lépp li nga xamante ni mooy yàq salsaani état de droit ci lañ ci ci lañ ci feebar bee leen ko may nañu def couvre-feu nañu def état d'urgence nañu def ma sàmm nañu def ma paate nañu botti mille milliards seet jënd ko ay ceeba ci macaroni loolu yëpp feebar bee leen ko may ñoom kay dañoo war da dàkk sa tey célébré ko nag jënd ngan bi gatu da ko ci hmm. bouche waaw daan ne feebar bi moo ñu yóbbee léegi nag man li may wax Ousmane Sonko personnellement bu mu wuyu ji waaw bu mu wuyu ji parce que ku yaakaar ni Sonko la ñu convoqué convoqué wu ñu Sonko de yaa ngi lay dégg ji maa ngi dégg bu baax ma madame Fall kenn convoqué wu Sonko xam nga ku ñu convoqué hmm. démocratie lañu ñu convoqué tribunal état de droit la ñu convoqué tribunal liberté d'expression la ñu bëgg a yóbbu tribunal mais du Ousmane Sonko un tiiti par semaine li ñu bëgg mooy dëkk bii kenn du fi wax dëkk bii koo xamante ni da ngay wax dëgg ñu ñu ñu ñu jéng la dugal la ci kaso bi dangay ngay dégg ay nit naan moo fi doon tuumalaati xaalis mais xaalis bi yaa xëyti xaalisu réew mi la mm-hmm. sàcc loo xaman ne dañ lii réew mi ñépp a ko bokk mu ne diw ñii def ne lii loo tax yóbbuñ ko ci yoon booba. Mhm. ah waaye yow ñu lay wax loo xam ne ñëpp a ko bokk nga xam ne bu ñu demoon tribunal sénégalais bu ne sañ ngaa ñëw taxaw ah constitué wu partie ne man damaa bëgg kii delloo ma sama xarit. Mhm. yow ñu koy tuumaal loo xam ne est moom dafay mujj a dugg ba sa wax kenn si biir privé mais ñii ñoo ñàkk argument nag. Mhm. dama ne sàcc mooy problème bi suñu Afrique bu delloo gannaaw ba fi mu toll nii mooy ay njiit yoo xam ne dañu jaawale li ñëpp moom ak li damay dégg sax ay journaliste naan président Sénégal yow yaay boroom kër gi defal yi fii affaire boroom kër amu fi du boroom kër parce que boroom kër ay nit du ñu la fal yàlla mooy def yow nga jóg sa soxna samp sa kër am njaboot du ñu hmm. ay njabootam man personnellement je ne me sens pas comme njabootu président je suis une citoyenne de ce pays te président dañ koy fal di ko folli boroom kër kenn du ko folli loolu mooy wax ji li ñu la jox moomoo ko dañu la ko denc loolu buñ ko xamee ñoom déjà nit ñi xam ne ñii duñ ay buur mais dañu leen a fal yenn hmm. saa sax ñu foqati comme bu deux mille dix neuf bi hmm. Hmm. dañoo war a dox ci li neex askan bi waaw démocratie nag la ñu convoqué ak état de droit mais convoqué wuñ Ousmane Sonko buñ ko saagaagalee ñëpp la ñuy saagaagal xam nga tubaab def ne jamais deux cent trois mais déggoo benn yoon ñu ne jamais trois cent quatre xam nga lu tax parce que nit bu muñee un muñ deux bu trois bi ñëwee rek mu jàkkaarloo yow. Mhm. loolu rek la. Mhm. jërëjëf. jërëjëf euh, madame Fall mbokk yi li ñuy waxtaanee mooy lu jëm ci mbir mbiri Ousmane Sonko convocation bi suba la Ousmane Sonko lañ ko convoqué te newoon na du wuy ji lan moo ci seen euh, xalaat ak lan ngeen koy xelal ak lan ngeen jàpp ci mbir mi ñenn ñi jàpp nañ ne dafa wara a wuy ji ñenn ñi jàpp ne warut wuy ji loole nag kenn ku nekk ak ni nga ko gisee sànq maa ngi doon wax benn mbir ca Tchad far am ko dugg. càdd nag am na fa benn opposant boo xam ne dañ koo convoqué wuy ji wutoon bi mu bañee wuy ji nag takk der yi dem këram doon ko jëli par force ñu koy jëli par force jàppante am na fa digganteem moom ki garde corps ak takk der ya ba yaayam ñàkk si bakkanam ak ko benn jarbaatam ñu bari am ci ay gaañu gaañu moo tax am na journaux yu bind tey nee na la xew càdd ak li xew jamono jii ci Sénégal soreewut ndax ñu bari ñoo ngi alerté ci mbirum Ousmane Sonko du wuy ndax ñenn ñi jàpp nañ ne lu ne mën na faa xew waaw lu ne nag mën na faa mën na faa xew su dee su dee demul wuy ji su dee nag dafa résister ndax loolu moo xew càdd opposant boobu nga xamante ni moo nekk euh, càdd biñ ko convoqué wuy jiwul ma ñu yóbbu ab mandat damani biñ demee jàppante am na fa fi la yaayam ñàkkee bakkanam ku jarbaatam ak ñeneen ñu bari am fay gaañu gaañu euh, ca càdd ma ngi noonu léegi nag wàllum vaccin yi Euh, kilifa yi lañ wax ne ñoom ñoo ngar daajoo vaccin yi ñoo ko ñoo ko ñakkoo mais xam nga kilifa yi tamit comme par exemple tey boo demee ci benn gox maire ba nga maire ba la ñëppee xam maire ba su ñakkoo maire ba moo xam presse bi maire baay jël photoom ñu def article ci maire bi ñëpp gis ko mais amaanaam maire boobu kese bi mu ñàkkoo ñaar fukki nit yu kenn xamul amaana nekk nañ fa ñàkku te kenn xamul ñàkku nañ wala ñàkkuwuñu loolu tamit dafay am ci dafay am ci ci mbir mi mais en tout cas daal ñi nga xamante ni ay mag lañ ak ñi nga xam ne amee nañu yenn xeetu feebar yi ñooñu moom war nañ leen a ñàkk su dee bëgg nañoo ñàkk ñàkk yi tamit kenn waru koo forcer kenn waru koo forcer kenn te jàpp naa ne tak kenn forcer wu ko kenn ndax moom président moom euh, lim si wax daal te muy njuumte mooy bu ngeen ñàkk wu dama koy jël maye ko ndax ñàkk yi nag moom moomu ko waaw ay la yewan moomul moomul moomul ñàkk yi suñu xaalis la la jëndee ñàkk yi kon sañu koo sañu koo maye ma ngi noonu léegi beneen bi ñu waxtaanee mooy lu jëm ci mbir yi Ousmane Sonko njiitul Pastef suba lañ ko convoqué ci huitième cabinet bi ma juge du Seck ngir nag mu daal di wuy si si tuuma yi nga xamante ni tey moom la ñu koy moom la ñu gàll ci aw ndoddam borom sono bi tey jii la ñu koy déglu moom ak Sidi Ahmed mbay Euh, lan moo ci seen xalaat ak lan ngeen di xelal Ousmane Sonko euh, bëri na nag ñoo xam ne yëkkati nañu ci seen kàddu euh, lu jëm ci wàllum convocation boobu en tout cas ñenn ñi jàpp nañ ne war naa mën a dem wuy ji yoon comme yoon moo ko daal di soxla ku ci mel ni madame ak ñeneen ñu mel ni ñoom li ñu gis daal mooy Ousmane Sonko wërta wuy ji lan moo ci seen xalaat loole la ñuy waxtaanee ci rajo Réew mi FM 88 628 84 84. nga bës 1 wala 88 628 85 85 nga bës 1 wala 88 628 86 86 nga bës 1 ngir bokk ci euh, waxtaan wi ci kàddu réew mi ci rajo réew mi FM. kàddu réew mi di jotaay bu leen réew mi FM di jagleel bés bu jot altine ba àjjuma gannaaw xibaaru wolof yi mën ngeen caa woote wax seen xalaat ci 88 628 84 84 wala 88 628 85 85 wala boog 88 628 86 86. maa ngi woote Bayax. maa ngi woote Passy Athénée. maa ngi woote Dakar. waaw dama bëggoon joxe sama kàddu. diw nangam moo tax waxut ci nangam. tekkiwul nga ne diw wër ta wax ci nangam. mais kenn ku ne génn naan kii wax naa kii waxul non ku ci ne dañ ci war a wax troisième mandat man tiituma comme daa tiituma si Macky Sall si boobu Sénégal yi ko bëgg tut moo tax man tiituma si hmm. asalaamaaleykum wa rahmatullah maanaam daal li ma leen di wax nii bind leen na ma leeral yàlla ni bu ñu ñaan mukk Macky Sall ne day ko defee di ngeen ne maanaam fay waxoon na hmm. mbokk yi ma ngi noonu yéen a ngi déglu rajo réew mi FM kaddu réew mi ñaari ponk la ñuy waxtaane ponk bu njëkk bi mooy njiitul Pastef di Ousmane Sonko suba la ñu ko convoqué bu juróom-ñeenti waxtu jotee lan mooy ci seen xalaat ndax dafa waxoon ne du wuy ji ñenn ñi nag euh, li ñu gis daal mooy na dem euh, wuy ji comme yoon daf ko daal di euh, woolu ñenn ñi nag seen gisin daal mooy bu mu daal di dem wuy ji loole nag yéen lan moo ci seen lan moo ci seen xalaat loolu la ñu daal di waxtaanee ndax avocat yi sonk nag ñoom bind nañ premier président cour d'appel bu ndakaar xamal ko na ko ñun daal avocat yi sonk xamal nañ président premier cour d'appel bu Ndakaaru na ko ñun ànduñu ci juge Mamadou Seck mi yor euh, mu yor dossier bi ànduñu ci moom ndax ñoom dañoo jàpp ne du juge boo xamante ni ku moom boppam la du koo xam ne kuy tëddee njaaxaanaay la loolu nag ñoom yoon may na leen loolu waaye Ousmane sonk daal li tax moom mu ne du wuy ji mooy lu jëm ci wàllum euh, immunité parlementaire am niñ ko dindee moom jàpp na ne procédure bi dafa weng euh, jaarul ci yoon moo tax léegi nag am nañu si dox tànk jàmm ñenn ñi jàpp nañ ne war naa mën a dem wuj ji déchargé na tamit li nga xamante ni tey moom mooy euh, convocation bi moo tax ñenn ñi njort ne amaana mu wuj lan moo ci seen xalaat ci wàll woowu euh, beneen ponk bi ñuy waxtaanee mooy lu soxal wàllum vaccin yi euh, vaccin yi nag dafa am ñu bare ñoo xamante ni nag li ñu gis daal rawatina journaux yi bare bari am nañu si bind sax commentaire ñoom li ñu gis mooy vaccin yi dafa ñëw ñi nga xam ne la ñu woowee ay ay VIP ay autorité ay kilifa ñoom lañ gis ne ñoom ñoo jël ñàkku yi euh, di si ñàkku ak ba pare tamit dugal ci wàllum politique ndax am na journal boo xamante ni moom xaabaabal na si sax ndax nee na am na ay VIP militant politique de l'APR ak ay njaboot yoo xamante ni ñoom dañoo dajale seen i ñoñ yóbbu leen ngir nag euh, ngir ñu dem ñàkku ñenn ñu jàpp sax ne euh, fële sa jurbeel tamit foofu dañoo jàpp ne dafa wàllum politisation boo xam ne. am na ci li nga xam ne moom mooy euh, moom mooy vaccin yi nga xam ne euh, ñëw na ci réew mi euh, lan moo ci seen xalaat ci ci wàllu woowu waaye nag ñàkku yi ba léegi ni daal am na ñoo xam ne ñoo ngi xaar ngir dem ñàkku ji am na nag ñenn ñoo xamante ni ba léegi seen xel dalul ci mbir mi ñi seen xel mat jëm ci wàll wi yëkkati nañu si ay kàddu xam ngeen ne tey ji tamit la tey ji la tey ji la anniversaire coronavirus bi mu ñëwee Sénégal ak léegi tey la tey la mat benn at tey jii ñaari fan ci weeru mars la la la man benn at bi coronavirus duggee ci euh, ci Sénégal euh, loolu la ñuy waxtaanee mbokk yi ñàkk yi ak mbiri Ousmane Sonko njiitul Pastef bi nga xam ne convoqué nañ koo niki suba euh, lan moo ci seen xalaat ndax war naa wuy ji ñenn ñu jàpp ne bu mu dem wuy ji ñenn ñu jàpp ne daal la nga xamante ni moom moo ko war. moom mi dem moom mi dem wuy ji kon ñu leen di xaarandi ci 88 628 85 85 nga bës 1 wala 88 628 86 86 nga bës 1 ngir bokk ci waxtaan bi allo allo oui. salaamaaleykum Mbaye Kane moom di Diagne nuyu. waaw Mbaye Kane ñoo ngi lay euh, ñoo ngi lay fay. loolu am cat de wax naa ko fi démb si rajo bi démb maa ngi koy wax fii attiré attention nit ñi rek. Mhm. waa ji ñu at opposant radical ñu fekk pour naan dañu koy arrêté. Mhm. rey mhm. loolu maa ngi koy wax fii rek. parce que mooy càdd. ba mu posé question sax ne ndax wax waxi xale bu jigéen xale bu jigéen mën a fan jar na jar na loolu tam réew. xale bu jigéen boo xam ne ba mu nekk école la la accusé maître am viol du tey ah. ba pare waa APR yi ak ñu ànd ak Macky Sall koo si waxal lu nangoo tudd Sidi Sidi Mouhamed Mbaye koo si waxal du waxi Sidi Mouhamed Mbaye mu daw pourquoi génnewuñu communication téléphonique maanaam li xale li li li li Adji Sarr waxanteeg Mouhamed Mbaye pourquoi génnewuñu ko teg ko saabal yi te bàyyi doomi jaambur Ousmane Sonko doomi Ziguinchor la waa sud dañu dañu dafa ñu gisee seen bopp de billaahi wallaahi waa sud dafa ñu gisee seen bopp Sénégal man xam naa sud bu baax a baax a baax a baax te doom doom yoo xam bi ñu tooñ de bi ñu tooñ loolu c'est dans leur tradition c'est dans leur sang tooñ xamuñu ko mais nag ku leen tooñ duñu la baal la loolu moom loolu moo fa mm-hmm. boo laajee boo laajee Soro Seydi Soro Seydi xam ne baax Casamance man ko félicité bu baax te li mu gëm dina la wax lan mooy joolaa ci soote joolaa lu muy si xam lu mu si soote du tooñ de mais boo ko tooñee du la baal loolooy joolaa Ousmane Sonko nañ ko bàyyi ngir yàlla parce que le piège là yàlla daf weer SMS bi ñu yónnee mu tombé si ci ci avocat ba SMS ba ñu yónnee xam nga yàlla yàlla yàlla du nit yontaale Ibrahima ba ci sànnee sa safara sa safara glace la rek yàlla du nit mais boo hmm. jiitee am réew gëmoo yàlla gëmoo ne yow yàlla la fal bés bés bi ñu ngi wàcc gëmoo ko ay pexe ngay def. Hmm. Malick Maodo Faye bu bu bu bu bu bu Sud FM wax na ko fi ne képp ku falu dafay pexe pour toog pexe yooyu ñooy daaneel. gis nga gëm yàlla dafa force nit man hmm. mosuma woote si rajo ndax lu ma am man kenn déedéet jamais de la vie jamais de la vie lu ma woote askan wee tax lu ma woote démocratie tax. Ousmane Sonko bu te woon tey jii indi di déconné mbaa muy def lii ma koy def maa ko njëkk xeer la maa ko njëkk a xaajal xeer mais yow loo koy xelal loo koy xelal loo koy xelal mu dem wuy ji walla mu toog man de à sa place à sa place waaw damay wuy ji mais bu wuy jee waa Pastef waruñu toog ne yàcc jasaar dañu war a xeex ba sagara xeeñ xeex nan la ñuy xeexee comment nan la ñuy xeexee ah, ah, la démocratie mu may si xeex Afrique su ñu xeex du man da lay xeexee aparté du mu daanu wax na ko yàgg naa wax ne ku ma am ndey ak ku ma amul ndey wuti wala aparté c'est la même chose c'est la même mentalité dafa metti rek Sénégal nag xamuñu ku fay xamuñu ku dóor ku fayoo xamuñu ku ku ku dóor ku fayoo la ñuy xam boo fayoo ñu ne war a war a koon def dafa ëpp yi nangam nangam ah jàmm lañu bëgg mais jàmm dañu koy ji jàmm la paix aussi bañ daan na ko wax la paix c'est pas un mot c'est un comportement comportement na ngay jëfee moo indi càmm ba ay na ngay jëfee donc moo indi càmm ba mu ay ñun àccewuñu de mais les PV la gendarmerie qui sont partis dans la ñëpp ko liir ñëpp ko liir te képp kuy wax dëgg gis nga fa lu ko pourquoi gendarmerie eggalu enquête mais gis nga sa réew la réew mii lenn ñu dara le ñun Sénégal dañu yàcc dañu yàcc aar wóor na ma ne ñu takk esclave esclave yu bu Amérique Sénégal si ëppoon li ma gis ci comportement fekkoo ma ko de man ba ñuy ay ceeb ay caalal la yóbbu am li Sénégal di ëpp parce ba seen bakkan ci dëkk déedéet esclavage bu esclavage bu jeexee ñu sa jaay bakkanam nit jaayul bakkanam ñu rey ko mu rey ci tooba tooba rey ko nit ñekkaw loolu démocratie ma ko comme ba tey jigéen du war kon ba tey dinañ noonu kii am na alal mooy war kii amul alal du war démocratie ba mu jógee fii ñu da ko xeex ñun buñ bénéficié ñu war a dignité la démocratie bu Ousmane Sonko duggee kaso Pastef warul toog Pastef dafa war a continuer baa bi dans les ambassades partout partout partout partout là même ba ba ba añu makka Pastef taxaw di waaw man loolu laa gis parce que la démocratie du du lu nit war a yàq du du lu nit war a jàpp di ko di ko lem yéegee ko pare dama échec loolu mën na sa il faut que qu'on soit digne de la démocratie jërëjëf. bawol info point net moo leen di jox ay xibaar yu gaaw te ay journaliste yu xarañ mën seen liggéey le portail du Bawol sur le web. bawol info point net a abonné sunu chaîne YouTube bawol info ngir ngeen di man di jot bépp xibaar bu ñu dugal.